Hello. teggin xam xam sa bopp doon ndaw am maanaa am personnalité moo tax ba wóote ñëpp ni tey mboolem sëriñ yi nga xam ne mosu ñoo dugg instant mosu ñoo dem ci làmb ñëpp sëriñ si dañoo leen ni que def forte délégation indi leen ci instant bi daa gën a sa jëm dama bëgg

Thank you. këng wax mag dem dañ taali dagg war mbaab lu waay doon jaay léegu lamb combat bi jamaykee da koo jàppoon la 20 mars yàlla suñu borom antuwul li ko waral mooy góor a moo amoon benn blessure ñu dëkk géejawaay ba ci fils de Balla ñëpp ne daa daw góor dem préparé ji faju ba état de santé macha allah wérgu yaramam lépp ne impact ni ko xale yi di waxee mu ñëw tey fas yéene laale xale bi di Fils de Balla boo gisee goro Sock tay ni mu dugg see ni mu tuusee ni mu waajee nga xam ne làmb ji jeex na waaye en tout lu mën a xew lu mën a xew mooy <laughs> arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar li règlement bi wax ak li mu nangu ndeysaan arbitre bi laaj na ay siisam laaj na fi Fils de Balla arbitre bi sifflé na mbokk yi dimanche 14 août 2022 il est 20 heures 19 minutes Gora Sock féete la càmmoñ Fils de Balla féete la ndijoor nga jàkkaarloog moom ñu ngi lewaatoo est-ce que dina am round d'observation ñoom ñaari xale yi Fils de Balla day dem wala Gora Sock day dem ndaysaan ca kaw la jëm Gora Sock door na ndaysaan cokkaas na Fils de Balla Gora Sock ñoom ñaar kenn mooy njëkk a song Fils de Balla Gora Sock Gora Sock Fils de Balla ña ngay xeex ña xeex Fils de Balla ngay xeex <laughs> laa ilaaha illallaah supporters yi yuuxu nañ Fils de Balla Gora Sock Fils de Balla jiital tànk càmmoñ Gora Sock jiital tànk càmmoñ ñoom ñaar bu ñu xeexee mu neex suñu bëree mu neex Fils de Balla Gora Sock ñu ngi lewaatoo combat bi maadu daa nar diire Fils de Balla Gora soog ñu ngi lewaatoo Fils de Balla daw na jàpp am na ngemb busulu busulu busulu waaw waaw busulu ku nekk ak sa foor waaye Gora Sock da koo yëg liir ko téye ci loxo bi boo ko defee li mu du sotti waaye ñoom ñaari xale yi ku ci nekk état de bi nga indi jaar na yoon ku ci nekk fango bi door na ko laay laay la door na ko jël na ko caxabal daan na ko laay laay la laa Fils de Balla daan na ko jël bu rëy daa bëri ak moom jël ku jëlal Balla Gaye jëlal Balla Gaye eh, fan la Balla Gaye jëm Balla Gaye fan la jëm topp na fils de Balla eh, Ndeysaan fils de Balla wane na boppam waaye fils de Balla wane na boppam ay waay géej waay waay ndeysaan Balla Gaye ndeysaan Balla Gaye ma nga noonu Balla Gaye ndeysaan Fils de Balla daan na Gora Sock ayca Ibrahima Fils de Balla daan na Gora Sock na Gora Sock. waaye nag jur yi waaye. Ah, waaw dafa naag waaye nag. dëkk la dëkk la dëkk la dëkk la dëkk la dëkk te joo dee gën ndaw di ma ga bu ñu kàccul ndaw waay concentré na ñu ngay seet booy bàyyi leen seen man dama mën a bëri xale laa dama mën a bëri xamaguñ ma nag Yékini Junior laa soxla mu bëri mu bëri keneen foofu Yékini Junior laay bëri masha Allah Fils de Balla eh. Ibrahima wane na boppam ci wàllu làmb làmb ngi nii Fils de Balla bëre na ak Gora ñu wuree ci biir bëre Gora jël jox ko coup Fils de Balla encaissé coup waaye teewul teewu koo bëre Gora Sock dafa jàppoon ni Fils de Balla kaawoo ci combat bi te alors que kaawul ndeysaan alors que kaawul jëlal. c'est